ne nga ni. del fay di nelaw ba doyal. nga naan sama temps moo jeex. léegi foofu waaye man foofu sañu maa woote benn néeg ba néeg ba 40 000 laa ilaha illallah. am néeg 40 000. <laughs> ah ah. 40 000 du dara. seer. yow yaa ñu fayaleel ba pare de. yaa ñu fayal man ma fayal. kay lay ma dugal foofu rek moom muut seen. muut si àdduna yow yaa ñu fayal dem bàyyi ñu fa. ci loo nekk mbaa yaa ngi waa ñu ngi sant yàlla bu baax la man. lan moom première chose mooy Baye Mandione suñu grand frère mooy bëre am nañ droit teew fi du dëgg. beneen bi si mooy Kaolack bu ñu fi ñëwee ñëw nañ suñu kër ndax sa jour bu ñuy bëre dañuy déplacé wu def ay kaar ñiy taal jakarta yi ñëw soutenir nu quoi waaw dañ fay ñëw si ñaar ñooñu. da ngeen ñëw pour remercier soppe yi waaye da ngeen fay ñëw tamit pour soutenir Baye Mandione. fay ñëw pour soutenir Baye Mandione ñëw fi tamit ñu defaale ko ça fait l'occasion ñu remercier soppe yi. léegi nag ba yaa ngi kiif yaa ngi dal wala dalagoo ba léegi. <laughs> non la ngay attaqué liiru jaar rek. non daa mel ni sotti nañ ma ndox mu sedd nag <laughs> waaw. bu lépp weesoo nag lambu kese la bu jeex na jeex. waaw bu lépp passé moom ñu ngi félicité Sa Thiès du dëgg di ko di ko ñaanal yàlla ndam li jikko parce que tamit sport la. yaa ngi dégg sport dafa war a boole mais warta tàqale du dëgg tey jii ñu bëri foog nañ ne sax defet bee tax ñuy waxe noonu non non ñun dépassé nañ lool Lamine comprendre nga parce que yàgg nañoo bëre nit du ñu daan si sa kanam teewul dañuy xëy takaat suñuy dàll takaat suñu ndig demaat xam nga kon min nañ defet min nañ victoire lii du dara parce que moom làmb ñoo ànd tey mbër ñëw na fi ñu dóor ko mu daanu ko gënuñu ko ndey gënuñu ko bàyyi mbër ñëw na fi ñu daan ba toog si kawam gënuñu ko ndey gënuñu leen bàyyi du dëgg kon tey suñu borom bu ñu suturaalee am na loo xam ne sant yàlla sax la war a doon parce que mun naa ne sutura suñu borom la xam nga ñu ngi ciy sant bu baax mais du problème mu defet bee tax ñuy communiquer juste que maanaam daa am doon leeral rek muy affaire de vie privée yi affaire yooy suñu mag ñi bëri nañ ba bàyyi bëre mosoo leen a dégg si affaire de dugal làmb si vie privée parce que pour dire vrai làmb dafa commencé yàqu quoi. xam que nañ ko yemale rek si aspect làmb après bu jeexee jeex na quoi si cadre sport sport dafa a boole mais warta tàqale tey gis nga man maa ngi jégalu ñu bëri nag ñëpp sama sorte bi ma def bi ma ko defee wallaahi lamin ñi ma woo ñu ëpp ñu dëkk géejawaay ñoo ëpp sax ñi ma woo ñu nekk caaroy xam nga ku si nekk see xamee wuñ la nii bul di waxee nii xam nga yow dañ lay déglu dañ lay seeraan xam nga mu doon tamit affaire boo xam ne gën naa tax ma ma war a defaraat sama toogaay gën a xam tamit fi ma toll fan la daal. Mhm. liiru ñaan nag loo koy non liiru. sa la sa suñu suñu papa la nañ nijaay. liir mun laa jur liir xale. 40 ans la am nee daa def jugement. attan na laa bàyyi ci xam nga waa tey ji liiru suñu suñu nijaay la ñu ngi koy jégalu tamit encore une fois xam nga di ko wax ne tamit maanaam des fois nit dina tax nga wax nit loo xam ne jëloo woon intention bi. comprendre nga parce que tamit ñu ngi koy jégalu bu baax encore une fois di jégalu ñëpp di jégalu le monde entier xam nga. parce que tamit affaire bi Lamine yow da ngay dem sax ba wallaay daf lay ëpp loxo xam nga mais lépp sant yàlla la parce que suñuy moroom a ngi si dëkk bi sutura bi ñu suñ borom defal defalu leen ko kon daal ñun daal du ñu def lu dul sant suñu borom bu wër. léegi nag fu ngeen jëm reprendre ngeen entraînement wala yéen a ngi noppalu waaw noonu jot ñoo noppale ko parce que tamit suñu frère suñu xarit Coly Faye 2 war naa bëre du dëgg war naa bëre le 18 ñu koy ñaanal yàlla ndam booy xool maanaam bi ñu bëree lënd bi ñu wujjee xam nga la la ñu la ñu continué waat suñuy entraînement dem nekkaat si li ñu war a nekk parce que instant bi temps amul xam nga combat qualifié suñu combat la suñu combat combat qualifié la ku si nekk gis nga li muy daj suñu combat xam nga moo tax temps amul noppale ko amul di ko ñaanal suñu borom yàlla defal ko ndam lu sedd guy si kaw paam Ndoye. léegi rek fu mu jëm. waa rek mu ngi fi pour làmb rek parce que tamit so xool tey rek xale la xam nga. Reug ak Sa yaakaaruñu si làmb làmb moo yaakaar si ñoom xam nga parce que tey ku si nekk rek am nga possibilité tey Sa Thiès amoon na possibilité dem liggéeyi leneen wala mu dagg visa dem états uni toog fan dina ne ay moroomam Reug tamit pare noonu mun naa mu dem defi leneen sport mais làmb moo yaakaar si ñoom làmb moo soxla ñu mel ni ñoom xam nga ay xale avenir mu ngi seen kanam wallaahi ñoom liñ dese moo ëpp liñ passé xam nga kon nag tey jii nii amul benn affaire boo xam ne tey soo xool mu ëpp adversaire si làmb ji yaa dégg te làmb dafa soxla renfort si kaw xam nga tey mun nañ ne Sa Thiès yàlla may na ko ndam mais yàqalul dara rek teewul ñi mu war a bëreel rek lay bëreel. ñoom ñan la ñan la bàyyi la tawari war a bëreel rek lay bëreel waaw. ñooñu ñan la. waaw làmb rek ñu nekk si làmb parce que soo xool tey xam nga làmb dafa doon loo xam ne fi mu toll du mbër mi mooy mooy choisir ay adversaire am la. Eh, non non bàyyi ko waxal boppam ba pare. xam nga xam nga maanaam làmb day toll foo xam ne du yéen yéenay choisirate da ngay xool li neex làmb li neex say supporter rek nga dox si. li fa wax loo ci wax. waaw Lac de Guiers 2 tamit Lac de Guiers mu ngi fi ngir làmb yàgg na Lac de Guiers soo xool yow kii Lamine Lac de Guiers ak Ama Balde laa gën a yërëm si làmb. wallaahi azim dañoo sonn si làmb ba pare làmb defalagu leen le mieux xam nga kon nag tey jii nii maanaam soo xool la dëgër heure bi waroon naa teglante ay combat ay combat xam nga soo xool moom tamit ku bëri adversaire la si làmb ji yaa ngi dégg moom grand bu baax la <laughs> yaa ngi dégg mais daal rek daal mu ngi fi pour làmb ku ko làmb booleel incha allah dina bëre. mais pare ngeen pour lak waaw déggoo rek pare na pour ñëpp soo xool rek moo ëpp adversaire si lambu ji amul benn mbër boo xam ne. da nga koy konteel sept adversaire wala huit adversaire si kaw xam nga tey rek nag sooy xool ñëpp lay bëreel à part Siteu kon kooku xam nga ne moo ëpp adversaire si làmb ji jërëjëf jërëjëf Lamine faram ku dugg saa bi. waaw waaye eh saa wu la. waaw bu taxaw ku dugg saa bu ñu taxaw ñu ne Aliou ñëw. dugal ma suuf ba tooy. dama dama ne. xaaral bi maa ngi installé wu ba pare.